war a ñu filmé waaw dafay gaañu dafay Ahmed taxawal Ahmed taxawal taxawal Ahmed taxawal. taxawal no good no good Ahmed taxawal bu def dara taxawal taxawal. Guys, back up, back up! No good, no good, no good. Get on the sidewalk. Get on the sidewalk right now. No good. Get on the sidewalk. Oh, we, we in the sidewalk right now. We know what's going on. We're in the sidewalk. No good. Ahmed taxawal taxawal Ahmed Ahmed. boo dem taxawal Everybody get on sidewalk now. Everybody get on sidewalk right now. We on the sidewalk. Everybody. Stop. You don't know nothing, boss. Get on the sidewalk. Boss, boss. All right, get on the sidewalk. I'm asking, I'm asking you nicely. No, we'll go back. We'll go back. Yeah, but he ran from us. I understand. He can get the fight back to the priest. Man, man, good, good. Why don't go to his camp? What do you do? Everybody get on the sidewalk right now. Okay, got This is the last time. Otherwise, I'm going to start grabbing people. You get something. No, you don't have to beat him like that. You don't have to beat him like that. You don't have to beat him like that. my God. You don't have to beat him like that. Fuck you, man. has changed. No, nobody do nothing to you, boy. You don't have to pity him like that. Nobody, nobody do. You don't have to beat him like that, yo. You don't have to beat him like that. Stupid ass nigga. You don't have to beat him like that. I got all the videos here. You gotta show me your lawyer, man. man a siren. It's you. It's you. It's not nobody. It's you. It's you was beating him. I got other videos here. I, ha I have everything in my phone. Okay, that's fine. It's on the way. It's on the way. Yeah. You don't have to act like that. All right, he's not the runner unless he... Nah, you don't have to act like that, man. David Mola Shane. No, nobody do nothing to you, bro. You don't have to kill him like that. Nobody, get on nobody do. You don't have to beat him like that, yo. You don't have to beat him like that. Stupid ass, nigga. You don't have to beat him like that. I got all the videos here. You gotta show our lawyer, bro. JND News, informé dans siren right now. Let's go. Let's go. We are the siren. It's you. It's you. It's not nobody. It's you. Oh, oh, oh.